mais mais aujourd'hui euh, fan euh, nga établir sa sa sa base. sur le Sénégal. parce que à un moment donné ne yaa ngi woon Grand Yoff nga jékki-jékki nekk Gossas nga jékki-jékki nekk Kaolack musuma voté Gossas ah musuma voté Gossas mais à un moment donné nga doon yëngatu politiquement à à à Gossas nga jékki-jékki ju dégg la Kaolack alors xam nga tradition bi euh, léegi c'est depuis euh, c'est depuis euh, c'est depuis Macky Sall je pense la tradition c'est que beaucoup d'hommes politiques dañoo am seen base électorale affective Ousmane Sonko à Ziguinchor Macky Sall Fatick Fouta par exemple Babacar Diop il a il a il a Sall mooy ak Barthélemy ñoom ñooy borom Ndakaaru alors euh, yow euh, fan ngay établir sa base électoral affective. ci Sénégal ci Sénégal ak wax ak 53 pour cent aux Sénégalais yi nga xam ne voté wuñu 53 pour cent des Sénégalais ne sont pas allés aux urnes ñoo a intéressé ak partout dans le Sénégal. où j'ai voilà des sympathisants des cellules et cetera mais li nga xam ne moom laa la bëgg leeral mooy affaire base loolu c'est une optique maanaam nga defe ne lu am la te amul. c'est-à-dire. élection municipale janvier lañ ko def deux mille vingt deux. Mhm. am maire yoo xam ne opposition lañ nekkoon dem gagné. ci diggante bi président Macky Sall labat leen ñu transhumé ca commune yooyu ñu nekkoon fekk si waa APR dañ leen a dóor six mois après ana seen base foofu. Mais ça, c'est la, ça, c'est la, c'est la, c'est la, réaction de l'électorat qui s'est senti trahi. Mais moom la alors, ma la kenn moomul kenn. Bamba Fall. Kenn il règne, sur la Médina depuis plus de dix ans. Euh, local yi nii face aux listes APR, il est opposant, peut-être avec peu de moyens, devant euh, l'autre là, Cheikh Ba. Il a gagné, mais ba mu le pouvoir. il a été par les populations qui se sont senties trahies. Ah, très bien. Et donc, il ko topp 20 ans. ba mu rejoindre Macky Sall la base la yaa ngi may fekk si ci li may ah. wax yaa ngi may fekk si ci li may ah, wax. ah du ma la fekk see. mais li ma fekk see mooy nit ñi kenn moomu leen. ba nga naan base sama base mooy mel ni sa propriété la da ngay def loo xam ne. naw nañ la ci ñu ànd ak yow nga def leneen ñu teg la fa. Khalifa Sall sa base de Grand Yoff depuis 96 <laughs> euh, mu ngi ko téye Omar Sarr sa base de. Euh, d'ailleurs foofa foofa il avait perdu au référendum. donc ah. il de perdu au référendum c'était exceptionnel. c'était ah, une élection exceptionnelle. mais grand yëf mais ça c'est pas le problème. président Macky du fii la dëkk. Euh, Mermoz daa mos daa président bi mu bi mu yàggul toog Mermoz président 2011 la dëkk Mermoz. ça fait pas 12 ans ça. waaw 2011 la dëkk. ça fait pas 12 mais mais dafa fa base am. loolu du ans mais président base am moo tax ma ne c'est pas une de base. Euh, ab président Ablaye Wade il a été président du Sénégal mosut a gagné Kébémer la dëkk non mos koo gagné. donc c'est pas ça ne veut rien dire. bi nekk président il gagnait Kébémer c'est avant qu'il ne gagnait pas Kébémer. moom la alors. Ah, il était président il gagnait jusqu'à présent moom la je que récemment la ah, moom la alors nekk na fa opposant ba nekk président gagnewul Kébémer. waaw. Ah. voilà donc ça ça c'est pas nit ñi kenn moomu leen xam nga xam nga loolu bu fekkee ne nit ñi sóoraale wuñ ko dañuy dem ci ay erreur mooy indi nga gis politicien bu génn deux trois ans am voilà explosion doo comprendre comme tous ces jeunes maires qui sont là depuis 2022 <laughs> on ne les pas yow xamoo leen xëy na sax waa dëkk ba xamuñ leen mais on a voté pour eux ça les populations léegi dañu am seen liberté bopp dinañ xool sa parcours dinañ xool sa sa sa éthique euh, dinañ xool aussi sa sa vision noonu laa ko gisee